صل وسلم سرمدا على الذي خط ريدا بليلة دا فيها مديم المأسامي ليلة مولد النبي ليلة محور يابي ليلة محور witaabi wa tuhrizi taasumi jërëjëfati sëriñ Saaliw sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général kullu murit yàlla na fa yàgg te ànd ak wér maa ngi ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou moom sëriñ Saaliw mu yàgg fi lool te ànd ak di ñaanal sëriñ Saaliw Cuun suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di santaat sëriñ Saaliw bu baax tey sant sëñ Tuubaa si gàmmam gi nga xam ne dëgg mën nañu ko muy guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax ngay xam ne day guddi gu tedd tey guddi gu kawe ba sëñ bi xamal ñu ci lu baree bari ba xamal mooy guddi gi nga xamante ni ci la yonent bi gane si jamono waaye mooy guddi gi ñu faree ngis dal gu ñu faree coono te mooy guddi gi nga xam ne borom bàkkaar ci lañu laabee moo tax mu ne laylatu mawlidi nabi laylatu mahwiriya bi laylatu mahwi temps bi watu risi taasumi dellu fii ci ndigal lu ñu jële woon ci sëñ Saalihu suñ sëriñ Cheikh Béthio la sëñ Saalihu jox ndigal mu sos gàmmu suñu indee taarix ca moom la ñaan gàmmoo Touba bañ ko defee ay at bis ñëw mu ni mu jox ndigal seex bi ni ko sosal gàmmu yàgg say taalibe bi loolu defe naa ni réew mi yëpp teewe nañ ko fee ci Mermoz dañ ko tàmbalee adduna di fa daje bokki taalibe yi bokki jullit yi bokk yëpp di fa teew ñu jëfe ndigalu sëriñ bi sëñ Saliou ni mu ñu ko jàngale bokki taalibe yi wax nañ ko dañ ko teg ci suuna dafay bernde jàng alxuraan fanaane jàng xasida yi sëriñ bi noonu lañ ko daan baaxoo daan ko defee kër sëñ Saliou daal di ko feddali fii ci ndakaaru ndigal loolu nag tey jii la sëñ Saliou Thioune mi toog fi bàyyam toogoon di feddali ñu ànd koog moom. gàmmu gi nag ci sa baay nga ko jëlee fas yéene ko wéyal bëgg ko defé madinatu salam. wo fa mbolo mi wo fa say jigen yi nga bokal bàyyi wo fa sa doom yi yi wo fa sa talibey yi yep ndax la ngay wax ni talibey yi du sama talibey sama mbokki talibey lañu ak ñom da lo and yaakar Cheikh Cheikh yaakar Serigne Saliou Serigne Touba kon bo len de wo ci li nga xamni sa baay moko sotal ci ndigalu Serigne Saliou Mbacké da nga def li la war Serigne Saliou mo waxal sa ni ko day bëgg Serigne Touba ba sopp ko dégg ay ndigalam di ko liggéeyal te fu mu toll di ko waxtaanee ci lolu nga ne ku ñew fi yow boy dem day duy ba fess ngir doo génn diggante sëñ salihu ak jumaay touba ak penc ak jallatu mahwa ñoo ngi ñaan suñu borom ñu ñew ci gàmmo gi tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdullilahi rabbil alamin yalla ci ngeerumul sëñ touba ñeel ndax kat damay wax ni ginaaw li day ndigal ku ko jëfé man nga am ngeerum ah gamu gi de mom ñing ci wo wa senegal gep di wo Sénégal gépp ñu ngeen di woo waa bitim réew ñu ngeen di woo ñu ngi woo ñëpp jullit yëpp ñu ngeen di woo ah berne yi nag mat na ko waaw lépp lu suñu waajur daan def ah mënuñu lañ def lépp waaye sëriñ Serigne waa jën na lépp lépp mat na ko lépp mat na ko nag yi jënd nañ ay nag jën nañ ay gàtt jën nañ ay dàq jàpp lépp mat na ak gëléem yi na ma ko daan defee rek ci berne moy li ko sëriñ bi waxon nak ni ko sant ma dol la ah, cant gogo nak dañ ko jël dëxañ ko ci bir ndax gamu gi kat guddi gi sëriñ Saliou ko digalun moo ko digaloon ñu ko ran sëñ pam Ndiaye mu ngi koy wax legi ñu ko daan defee ca Touba mu jigi mu jox ko digal ni ko ko defé ca mermos ñuy dem ba ñuy dem ba xaju duñ fi ci ah sëñ bi jox ko digal mu def ko madunu salam kon nak ñing ci wo senegal gep di wo kep ku julit di wo nyep di sant jëwriñ ñi ko wër jëwriñ yi nek Europe États-Unis France nyep ñi ngi soñ nyep di wo nyep waaw di wo mbokk talibi di woo di wo autorité yi di woo ñëpp ñi ngi ñu kenn waaw transporteurs yeeg ñëpp ñi ngi ah Serigne Saliou nak damu gi man dan na fekke dan na jël warga ak suga ak café don ko yett serigne mbécio ci gamum gi mu naan def Mermoz dan jël warga café gu bari jox ko Moustapha Diaw Baye Diaw ni ko bo demé ak kuurub jànkatu xasida ñu nekkon lagan ak ndoka ak ñàppandal kuur bu mag la daan jël yeb ko ci ay car ak ay L200 ñu ñew diko jangal señ bejo fonk gi fonk gamu gi ñuy ñaan nak ah ñu dajé ci tawfiq ak nimbalam ak yermandem ndax lepp mom la. ku xol jotaay bi gis Serigne Saliou tok ak nun sam xel dem ci Serigne Cheikh bejo Thioune nañ ko daan toggee ak mom nii ñu ko fas yéene ànd ak moom noonee lañ ko daan ànd ak Serigne Cheikh Béthio Thioune ren jii ñu fas yéene ko ànd ak moom nañ ko daan ànd ak way juróom wu tedd wu màgg wi di Serigne bay Béthio Thioune sunu sëriñ Serigne bi mu ngi woote màggal gàmm gi ñu bokk ci ñi nga xam ne ci wàllu taxawaayu gàmb gi da ci am wet gum ñu ci féetale muy organisation bi sëriñ bi kat foo ko way juróom wa tegoon foofee la ko teg. ndegam nag mbuur lañ ko defee fa madinatu salaam nee na waa mbuur la cee njëkke mbooleem gox yi nga xam ne ñoo lang mbuur bàyyiwul kenn ba sañoon ñëpp ñëw gàmmoo si madinatu salaam ànd koog moom nañ ko doon ànd ak wajëru mu tedd bi mu ngi woo waa senegal gépp bàyyiwul kenn waaye nag ñi nga xam ne ñooy cantaakoon yi fu daara nekk ci biir senegal gii nee na na ngeen fa jóge wut ay kaar ànd ak mbooloo mi ñëw Madina Salaam ànd ak moom gàmm gi ci wàllu organisation bi dara du manki lépp dana mat sëkk te fas yéene nañ ko defee nu raw nam daan amee ca Madinatu Salaam kon ñoo ngi woon ñëpp bàyyiwun kenn. ndax Cheikh Béthio dañoo dimbali woon dimbali nu ba tey sax ba mbokk googu yi nu jël ni ko teg ne doxi taalibe moo waral nu toogee nii ba tax na yéen ñëpp yéen ñëpp na ñëpp waaj nan ko daan defee teel ñëw te teel a jublu ci tam barkeb sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou bokki jullit yi bokki taalibe yi cantakoon maa ngi leen di duyu di yëkkati kàddu di ñaanal sëriñ taxa sëriñ tubaa yàgg fi téwér di yëkkati nuyoo bu sell di ko teg ci yi sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou Mbacke sunub sëriñ di ñaan moom it mu yàgg fi te maa ngi am mbégte lool di woo waa Sénégal ci gàmmu gi nga xam ni day cadeau bi gën a rëy ci diiney lislaam sunu boroom jagleel nu ko nu aadawoo daan ko woote ku ko daan woote sëriñ Béthio moo ko daan woote ci ndigalul sëriñ Saliou ginnaaw ba ci sëriñ Saliou joxe ndigal ñu dellu siwaat fii di ko yëgal bokki jullit yépp ak fu fu waay bara biir réew mi ak bitim réew di ko yëgal kilifay aada yi di ko yëgal kilifay diine yi di ko yëgal réew mépp

moo nu ko sax buñ ko xamee moo nu ko defal ba tax na maa ngi ci woo bokki jullit yëpp ñu ñëw àndandoog nun màggal guddi googu nga xam ni moo moo gën ci guddi yi maa ngi ñaan ci barkeb sëriñ Saaliw ñu daje ci ngërëmul sëriñ Tuubaa guddi ga nag danañ ko teg fa ko sëriñ Saaliw Mbàkke daan teg rek danañ fa jàngi xasaay danañ fa jàng alxuraanul karim danañ ca bernde danañ ca sant sëriñ Saliou bernde yi nag dana yaatu danañ ca defar ay naan saf suukar te bari dinaa ci woo sunu bokki taximaan yi mm, sëriñ bi day ndeysaan da daan aadoo di leen ca woo te da koo yitteeloon lool ma ma ma barkeelu ca noonee mu ko daan defee woote woo taksi maanam yi ni leen gàmmoom gi ñëwati na mu ngi leen ciy woo maa ngi santaat sëriñ Saliou Mbacke tey ñaan sëñ Cheikh mu sëriñ Saliou yàgg fi téwér jërëjëf laylatu mawlidin nabi laylatu mahwiriya bi laylatu ma witahabi wa tuhrizi taasumi